jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñi lee di ex travailleur yu airport bus service ñu ngi koy jànkonteel euh, quatre ans la ñu toog fay leen seen salaire euh, mu nekkoon jafe-jafe yoo xamante ni entreprise bi mu ngi koy jànkonteel gannaaw dossier bu Karim Meïssa Wade ñoom nag tey jii ñu ngi daal di amal ay xeex ngir rek ñu daal di leen mën a réintégrer foofule ca ay BD ASBEF tamit am ay jafe-jafe yoo xamante ni am na fa crise ci wàllum gestion ak yu ni mel waral tey ji kon ñu dalal euh, suñu ñaari invité yi Ada Pouye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay nuyu euh, Ndeye Comba Moreau dama bëggoon na euh, corriger benn information man je pas un agent de l'ASBEF. Mm-hmm. je un volontaire. de l'association sénégalaise pour le bien-être familial. Mm -hmm. Donc c'est à ce titre que je suis venu parce que dañu am différence entre le personnel. Mm -hmm. ak les les, les volontaires volontaire. volontaire. différence bi. différence bi moom mooy volontaire bi dafay ñëw mm-hmm. pas-pasam rek la ci def. Mm-hmm. maanaam am yéeneem. Mhm. pour jàppale euh, kuréel bi ci boppam. Mhm. mais amu ci salaire amu ci dara. Mhm. keneen ki nga xam ne moom agent la kooku moom day jot salaire. ci biir ASBEF man bokkuma ci ñi nga xam ne agent la ñu ci biir ASBEF volontaire la maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu di jàppale association mu nekk. couleur bu nga xam ne mooy li ñuy wax euh, structure de gouvernance mhm. loolu moom mooy euh, différence bi voilà kon nga nekk volontaire ca ASBEF euh, Assane Cissé ñu ngi lay dalal jàmm nga nekk porte-parole bu collectif des ex-travailleurs bu airport bi Sovice ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm waaw jërëjëf soxna Ndeye Kumba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar mhm. di la remercier ci invitation bi di ziarit sa mbokk auditeurs yi Euh, di nuyu bu baax a baax euh, askan wi ñuy déglu ak surtout waa société ABS aussi di leen massawu mhm. euh, di profité ci occasion bi aussi di leen wax ne leen nañu nañu jàpp rek incha allah yàlla baax na voilà ngeen mer ba futtumee bala ñuy ñëw ci seen mouvement d'humeur bi nga xamante ni fan yi ngeen ko commencé dinañ la laaj lan moo nekkoon liggéeyu entreprise bi lay di bi service waaw balaa may wax ci liggéey bi mhm. damay wax ci yan circonstances la ABS juddoo mhm. Euh, keroog bi ñu songee Amérique le 11 septembre 2001 ay avion mbëkk ay immeuble laal xoolu Amérique mhm. àdduna yëpp yëg ko mhm. donc avion yooyu noonu ci ay aéroport la ñu jógee donc depuis keroog la OACI organisation de la de l' aviation civile internationale mhm. jël ay décisions yu ferme ne aéroport yi ci àdduna yëpp dañoo war a léegi répondre ci norme de sûreté ak sécurité yi nga xam ne ñoo war pour jëye yu mel noonu bañati am donc jamono boobu noonu euh, aéroport bu Dakar Yoff mhm. passager yi euh, tarmac bi nit ñi dañ doon traîner ci dañ doon dox pour ñu ci bari dañ daan dugg bus bu bus yi feesee ñu dox dem dugg ci avion et tout mhm. donc mu amoon benn genre anarchie ci biir tarmac bi mhm. ci ci ci ci ci circonstances yooyu la société ABS juddoo donc bi société bi juddoo euh, bus yi ñu ngi ko dem jënd jee Allemagne ci benn société bu tudd euh, euh, Cobus euh, Cobus Industries. Mm-hmm. donc fa lañ dem jënd fa ay bus indi leen Sénégal donc recruter ay sénégalais former leen donc mu am benn entreprise allemand aussi bu ñëwoon pour former leen mu pare certifier leen. ñu nekkoon fa ñoo xam ne aussi durant quatorze ans ñu fa nekkee mm-hmm. liggéey fa liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo. Euh, ñoom sax dañoo nekkoon sax ñoo xam ne euh, sénégalais sax xamuñu leen. parce que ils étaient tellement effacés. donc dañuy ñëw liggéey seen liggéey après wàcc dem seen yoon. donc c'était des gens très corrects amuñu woon benn problème. Euh, des fois sax ñoom ay jafe-jafe ci barabu liggéey liggéeykaay bi salaire yi tardé mais doo ko sentir ci ñoom quand ils venaient au travail dañ doon ñëw tenue bien mën a mën a Euh, nettoyer seen bis ba mu set dugg jël passager yi yóbbu leen ci aéroport bi ci ci ci ci avion bi. Mm-hmm. indi leen donc loolu moo nekkoon mission bi en fait. Mm-hmm. Euh, euh, mooy jël passager yi ci aérogare bi ci yóbbu leen ci avion bi et mm-hmm. vice versa. et le mi ngi doon marché bu bees. doon ñu lu baax ainsi amuñu woon benn problème entreprise doon marché. mu ngi doon marché normal ba keroog bi yàlla dogalee. Macky Sall falu en 2012 mu sandi mu lancé la traque des biens mal acquis donc bi mu ko lancé. Euh, ci la ñu jël société bi euh, attribué ko Karim Wade ne moo ko moom. Mhm. donc état dem ak Karim procès daal di koy gagné léegi mu ne moom moo gagné Karim. léegi société bi ak travailleurs yëpp léegi da ko jël def ko ci patrimoine am. Mhm. donc bi mu ko defee ci patrimoine am. Euh, donc yéen si procès Karim bi yéen ngi continuer woon. ñu ngi doon continuer di liggéey sans problème normalement parce que ñu leen di fay normal ñu ñuy fay parce que ñu nag AHS ñoo nekkoon ci même situation. Mhm. donc dañu indi loon ay ay ay ay kii ay ay bi ñu demee ba ba ci biir ci la ci la ci la problème yi commencé am donc AHS ñoom ñu continuer di liggéey ñun ñu xëy benn bés euh, le 30 juin 2016 à minuit genre mhm. gendarmerie ñëw taxaw. avec 30 juin 2016 2016. Mhm. Euh, gendarmerie ñëw taxaw ak euh, bien armé ak seen i armes et tout guddi minuit boobu mu ngi fekk sax ñu ngi ci plein liggéey. donc ñu euh, ñu ñu ne ñu ne leen lan la ñu ne Pape Mayel Diop moo leen yabal. Mhm. ak Maymouna Ndoye Seck. Mhm. parce que heure boobu ñun dañoo war a génn aéroport bi ci heure boobu. donc euh, naturellement mu am ñu ñu xaw a ñu xaw a fippu donc ci la ñu commencé di arracher badge yi suñuy baat. Mhm. Euh, ci la ñuy coc yi di di caabi yi. jaay ñu doole boo xam ne kenn mënu ko expliquer. donc guddi googu noonu am na ñoo xam ne sax keroog ndeysaan bi ñuy ñibbi te guddi laylatul la tombé woon. dañoo ñëwoon liggéey si des fois bu ñu xëyee le matin comme bu weer bi soree comme mm-hmm. entre collègues mm-hmm. ñu gisante ku nekk jox sa morom dara après ñu ñibbi mm-hmm. donc guddi googu ak nu ñu arrêté liggéey bi noonu euh, euh, brusquement ñu ci bëri sax bi ñu ñibbi seen kër amuñu paas. donc loolu con euh, circon condition yooyu la ñu. génne donc bu dañuy ñëw rek arrêté ko ni comme ça subitement. wala amoon nañ leen lu ñu leen jot a ah, wax. ainsi de suite état bi lu mu leen waxoon. mais nag à notre à notre grande surprise dañoo xëy Pape Mayel Diop yabal euh, euh, gendarmerie ne nañ ñu génnee parce que Sénécartour moom lañ jox marché bi. léegi yéen ngeen di perdre marché bi ñu jox ko Sénécartour. non non ñun ñun ab gagné wu ñu perte parce que hmm. ñun ci patrimoine état lañ bokk. donc marché boobu maanaam dañ koy jox Sénécartour jox Sénécartour léegi nag hmm. loolu moo jaaxal ñëpp. Hmm. parce que tey comment se fait-il euh, une société boo xam ne état dafa dafa dafa dem procès ne gagné na. moom moom moom société bi moom moom moom employé yi. employé yoo xam ne dajale nañ quatorze ans d' expérience. emploi yoo xam ne kenn amul dara lu mu leen reproché ci aéroport bi ils ont été corrects xam nañ seen liggéey miin nañ ko yàgg nañ ci. Mhm. ñu xëy benn bés arrêté seen liggéey léegi état bi nga xam ne moo ko moom soxla service bu mel noonu. au lieu mu mu mu reconduire leen. Mm. mu bàyyi leen fi dem jël beneen privé di ko fay. Mm-hmm. donc loolu mooy problème bi en fait. te avant ñuy def loolu amul lenn loo xamante ni wax nañ leen pour yéen ngeen mën a préparer wu ko vraiment Sénécartour mooy ñëw. ñoo euh, jël seen place waxoon nañ ñu ko. waxoon nañ leen ñu dem ba ci Mimi Touré. Mm-hmm. mu ne ñu loolu du fi am. Pape Mayel Diop li mu bëgg du fi am. Mm-hmm. Mimi Touré nag moom tamit loolu la gëmoon mais malheureusement demeewut noonu. kenn xamul nag ci yan canal la jaar kenn xamul lan la lijjantikoo ba génne ñu aéroport bi. Mhm. bu ñu génnee ci aéroport bi tamit euh, deux jours après yàlla le le frère euh, de la première dame. Mhm. Euh, Malick Seck la tudd. mu ànd ak mu jiite jiite benn délégation boo xam ne y avait y ah, ah, kii Ahmed Tidiane Ndiaye ancien moom moo nekkoon DG bu AHS. Mhm. ak y avait Leyti Diouf moo représenté woon Alassane bu Sutas ak ñeneen donc bi mu ñëwee. mu ne première dame yëg nga sunu sunu sunu problème bi mu ko déggee wax dëgg yàlla xolam neexul. Mhm. te lépp lu mu ci mën dina ko def dinañu taxawu ba ñu delloo ñu rétablir ñu sunuy droit. Mhm. joxaat ñu sunu liggéey parce que li ñu teg du dëgg du yoon. mu daal di génne enveloppe deux cent mille ñu jox ko travailleur bu nekk parce que veille Korité la woon. Mhm. ak benn billet Màkka. ñu ne ñu madame la première dame moo ñu ko jox. ñu aussi ñu ñu téye ci loolu génn dem donc bi ñu demee. ba fu may wax ak yow ni amatuñu benn nouvelle première dame. Mhm. amatuñu benn nouvelle Malick Seck amatuñu nouvelle kenn. autorité yi nga xam ne aussi tamit euh, dossier bi mu ngi ci seen table wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel. Mhm. am na ci ñoo xam ne bu ñu mësuñoo beddi. ku mel ni le DSP euh, xaw ma Abdoulaye Guèye la tudd. mësuñu mhm. sàndi saa bu ñu xëyee ñëw buroom bureau dinañu recevoir nee nañu sax bu ñu ñaan audience. dinañu recevoir dalal ñu defal ñu wax ñu fu dossier bi toll. léegi nag ñun dañoo jàpp ne quatre ans dafay yàgg. quatre ans boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw salaire yi te xam nga daaxu daaxu depuis depuis quatre ans fayuñ leen ñu ñu euh, euh, euh, démission nañu bon ñoom seen bopp xam nañ ne chaque mois suñu salaire mu ngi tegee mhm. parce que ci patrimoine état lañ bokk te société bi kenn kii wagu ko kenn kenn kenn tasagu ko mhm. donc quatre ans de de de de quatre ans ñu ngi toog amuñu salaire amuñu dara dafa metti jaabante nañu ba sonn correspondance bu ne yónnee nañ ko am nañu ay retour fu ne primature présidence fu ne mais nag lu ñu suñu suñu problème mooy pour pourquoi boobu ba léegi ñun mënuñu fexe ba dugg ci suñu suñuy droit mm. parce que ñun aussi ñaanuñu ah ñu saraxuñu yalwaanuñu kenn suñuy droit la rek la ñuy laaj léegi ñaata employé la actuellement la mbir mi euh, affecté ñun 47 employé lañ 47 waaw 47 mm-hmm. tey jii nii may wax ak yow nii yaa am bëri na ay per de famille yoo xam ne dañoo jël seen i njaboot sax dénkaane leen mm-hmm. parce que appartement yi ñu nekk dañ leen a génne bëri na ñoo tey amatuñu sax Euh, euh, prise en charge médicale. Mhm. tey ku ci feebar da ngay da ngay muñ rek mais boo moytuwul di nga faatu. Mhm. Euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. bëri na ci aussi tamit suñu collègue yoo xam ne sax jamono may wax ak yow fekkeewuñu ko xale bu ndaw. Mhm. ñu koy ñu ñu ma ciy profité di ñaan yàlla yërëm ko. di ko jaale ay mbokkam Pape Diaw suñu suñu collègue la woon nekkoon un jeune ñaari at la ma magee jeune la woon donc. Euh, mu nekkoon euh, ku correct ku doon liggéey bu liggéey bu bu bu bu bu correct normalement mosul am benn problème ak ay ak ay ak ay direct ak ay kiiwam mhm. ak ay supérieur donc ñun noonu la ñu nekkoon ci biir aéroport bi donc ay ay ay ay ay ay ñu correct la woon ay nit yu normal lañ doon liggéey correctement Sénégal xamuñu sax. Mhm. dañ daan dugg bus rek dem xamuñu woon sax. xamuñu woon sax voilà. voilà parce que mhm. kenn xamuñu ci coow kenn xamuñu ci dara. te coow bi léegi ngeen ko commencé. non ñu bon coow bi il faut ñu wax quoi. parce que dañoo sonn. dañoo yàgg toog di xaar dañoo yàgg dañoo jaabanteloo ci bureau bureau yi ba ñu sonn ñun nag autorité bi nga xam ne moom moo ñu doon may nopp chaque jour man dama gëm ne moom aussi dafa am fu dooleem yem mm-hmm. léegi fi dooleem yem nag aussi moom foofu la mën a yem léegi nag ñi ko féete kaw aussi ñun ñooñu la ñuy interpeller directement mooy le président de la république Macky bu fekkee mu ngi ñuy déglu na xam ne les travailleurs de ABS dañoo sonn ci patrimoine état la ñu bokk sox bëgg nañu dem dem liggéeyi parce que tey jii nii aéroport euh, Blaise Diagne. Mhm. soxla nañu euh, liggéeykat. ñoo xam ne ils sont déjà formés. ils son déjà euh, am nañu seen certification am nañu ils sont qualifiés et tout et tout mais personnes nga jël leen dugal leen aéroport loolu méttiwul liggéey bi bari na foofu. bu loolu weesoo aussi seen salaire nañ leen ko jël ñu jox leen ko. jox leen parce que métti na trop ah. situation liggéeykat yi kon yéen da di laaj seen salaire 4 ans yi ñu leen amee. waaw ngeen toog fay ñu leen. Mhm. mais da ngeen bëgg encore ñu jël leen. ñu jël ñu liggéey leen biir AIBD. biir AIBD ñu est-ce ngeen ni loolu c'est possible. sa dépend AIBD ak ni muy doxee ni actuellement. waaw ça dépend ci ñoom am ngeen fa place. non ça dépend ci ñoom. Mm-hmm. ça ñoom euh, état moom moo xam ni muy doxalee ay mbiram. Mm-hmm. waaye yaakaar naa ne salaire moom droit la. donc même bu dul dara aussi bu fekkee ne mënuñ ñoo jël foofu nañu jox suñuy droit bu ñu joxee suñuy droit ñun dinañ xam ni ñuy def. donc ñu ci mën a jël ñu jël leen kuñ ci mënul jël aussi tamit nga xaar ñu fay la say droit nga dem xooli leneen. ayca ñu ñëw ci ADAPUY ADAPUY nga nekk euh, volontaire ca ASBEF mais danañ la laaj déjà euh, kuréel gi lee di ASBEF euh, lan moo ko tax a jóg association pour le bien-être familial. jërëjëf mm-hmm. Kumba Moro. Mm-hmm. ASBEF dama nekk kuréel bu nga xam ne bi ñu koy sanc. Mm-hmm. ñu ko daan tànn ci diiru 1968. ñi ko sàncoon dañu nekk ay nit ñu nga xam ne ay kàngam lañu woon. Mhm. ci lépp li nga xam ne mu ngi jëm ci affaire euh, wéru yaramu jigéen. Mhm. ak lépp lu nga xam ne mooy jàppale jigéen ba nga xam ne dina am pas-pas. Mhm. donc ci kaw loolu bi ñu ko sàncee ci 1968 75 nag. ci lañ ko jox euh, statut officiel. maanaam euh, ñi ko sàncoon ci jamono yooyu mun naa leen fàttaliku am na ndem si yàlla Caroline Diop. bokkoon te ñi nga xam ne ñoo ko sànc ci jamono Senghor. Tamara turo ma xam ne moom ba léegi tey mi fii di jàppale bu baax a baax. Mhm. bokk na ñi nga xam ne ñoo ko sant. ki ñu doon wax euh, ndem si yàlla euh, professeur euh, Correa. Mhm. nga xam ne moo nekkoon professeur bi nekk au de l'hôpital Le Dantec ci côté gynécologie. Mhm. kooku xam-xamam dafa màcc woon ci lépp li nga xam ne mi ngi naka leen la jàppale jigéen pour mun a mucc ci jàmm. loolu moom doon liggéeyam. mu amoon aussi keneen ki nga xam ne mi ngi tuddee woon Seyni Mal. nekkoon gouverneur dakaar ay ci ay diir yu bëri. Mm-hmm. donc ñoo ñoo ko sancoon mais jamono yooyu bi ñu koy sanc leen rek moo nekkoon seen xel. Mm-hmm. naka la parce que dañu seetlu woon ne euh, jigéen ñi jigéen ñi wërilu di di faatu. ci bu ñuy mucc mm-hmm. dafa bëri woon ci jamono yooyu li may wax noonu. ñu seet ne li koy mën a saafaraal. mooy nañu jéem a taxawal kuréel bu nga xam ne loolu mooy euh, euh, sañ-sañam. maanaam mooy sañ-sañam ci kaw naka. naka lañuy dugalee fii ci biir Sénégal. planification familiale parce que dañ ne boo s'orienté njur dina la dimbale nga mu noppal sa bopp ba pare noppal sa njaboot donc loolu moo tax ñu ne planification familiale dafa nekk lu nga xam ne dafay dindi dafay dimbale nit ñi ba nga xam ne dinañu mën a wàññi euh, lépp lu nga xam ne mu dem ci faatu jigéen su nga xam ne yaa ngi euh, jigéen wërul parce que loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la woon ci jamono yooyu ma nekk parce que suñu ne 68 dafa nekk benn période bu nga xam ne période bu doy waar la Sénégal mi ngi soog a mi ngi doon période yooyu lay soo a jëpp indépendance am ak yooyu yëpp. Mm-hmm. donc il fallait ku ñu kenn ku nga xam ne euh, ku mel ni Senghor pour mu xalaat ne ah lii de nekk na li nga xam ne dina dimbale jigéenu Sénégal. Mm-hmm. ci kaw loolu lañ tëral ASBEF mu nekk fii. Mm-hmm. ci côté euh, Castor. ASBEF seen taxawaay. seen taxawaay. taxawaay bi moom mooy képp ku nga xam ne da nga nekk jigéen wérul. dina la dimbale la. jumtukaay yi ci war yëpp. Mhm. maanaam visite bi jox la lépp lu nga xam ne garab la ci li ngi jëm ci affaire u fer jox garab yi nga xam ne dina la muccal aussi ci sibiru yooyu yëpp. waa asbef loolu maanaam da ngeen di jël jigéen bi complètement en charge wala dafa am ci yenn bànqaas yu ngeen koy jàppale. dañ koy jàpp jël complètement en charge su ma nee complètement en charge maanaam. su nga benn docteur mhm. benn gynécologue. Mhm. moom mooy ñëw di dëkk ak sage femme. di ko defal euh, xool yaramam. Mhm. seet ndax euh, euh, xale bi ëmb bi wér na. Euh, seet naka lañ ko mun a gunge ba mu am ñetti visite mhm. yu mu war ñeent sax mu def ñeenti visite mhm. loolu mooy maanaam dinañ ko dinañ fagaru ba nga xam ne lépp lu nga xam ne amoon na ci jafe-jafe ñoom dinañ jéem a def tout pour faj ko ba nga xam ne kii de mën a mucc jàmm loolu mooy njëkk warugaru war asbak bu njëkk ñaareel bi mooy su fekkee yow danga ëmb ba ba ba mucc mucc mhm. jàpp aussi su fekkee da nga bëgg noppalu mhm. parce que dañu defan diiru ñaari at mhm. boo ëmbee ba pare ba mucc mun nga def fa diiru ñaar wala ñetti at pour sa doom balaa nga ëmbat ëmbaat au moins mu xaw a dëgg tuuti maanaam nga mu ko toppatoo bu baax donc loolu moo taxoon ñu ne planification euh, planification familiale dafa nekk lu nga xam ne aussi lu am solo la. Mhm. il faut que ñu koy jox ñu koy jox jigéen ñi. Mhm. pour ñu mun a s'orienter seen njur. Mhm. waxuñu dañu leen arrêté de mais dañu pour s'orienter seen njur. yamuñ ci loolu. bépp jigéen bu nga xam ne. da nga nekk ay da nga jànkonteel ci affaire jaasir maanaam munoo am doom dina la jàppale ba nga xam ne yow di nga ci diir boobu dinañ li jàppale ba nga mu am doom ci jàmm ak salaam que mu nekk ci góor gi dañu am boo xam daf leen tere am tere am doom mm-hmm. ñu mooy li ñuy wax euh, saa ñu tuddee ko jaasir mm-hmm. am na ñu nga xam ne dañ koy tuddee taxaw mm-hmm. mais loolu tamit yamul rek ci jigéen parce que suñu wax euh, jaasir ak euh, taxaw dina jàpp aussi góor góor bi aussi dañu am ñu nga xam ne loolu mooy seen liggéey affaire urologie la ñuy def ñooñu tamit dañ jàppale ba nga xam ne yow ku fekkee da nga jànkonte jafe yooyu jafe-jafe yooyu ñu sa fàcc la ba nga delluwaat sa sago mais amul benn somme bu symbolique boo xam ni patient dañ koy joxe. bu amul benn solo la parce que su ma waxee mun naa wax ne deux cent francs. ay deux cent francs xam nga su fekkee da ngay dem euh, consultation gyné gynécologique. Mhm. xam nga yaa ñaata soo ñëwee ASBEF cest à loo mun a fay lu mu rëy rëy rëy cinq cent francs lay doon donc mi ngi noonu ba pare. médicaments yi garab yi koy jox. yow yéen a koy jox euh, joxe wala. ñoo koy joxe. Mhm, mhm. ay produits contraceptifs ñu ñoo koy joxe parce que. ASBEF mhm. dafa bokk ci benn kuréel bu rëy mhm. bu ñuy wax fédération internationale pour la planification familial mhm. bu nga xam ne seen siège mi ngi nekk Londres te dañuy yëngu ci contenant yëpp am na lu toll euh, li ñuy wax euh, téeméer ak fukk juróom euh, dëkk yu nga xam ne dañuy bokk ci fédération boobu donc loolu mooy taxawaayu ASBEF mais yamuñ ci ci loolu su fekkee dañ ne xale dañ ko war a tàggat parce que xeet nañ seet nañ ne am na xale yu bëre ñu jigéen xëy na dañuy teel a dugg ci sëy mhm. te seen cër sax matul matul mhm. ñu ne ñooñ tamit il faut ñu tàggat leen ba nga xam ne ñoom dinañu mun a moytundu loolu ñuy wax euh, ëmb bu teel mhm. donc loolu moo tax xale yi dafa am benn compos bu composante bu am solo bu nga xam ne dañ koy def moom ñu ngi koy jublee ci njagamaar yi ak ndaw yi parce que ndaw yi il faut nga préparer leen pour ëllëg préparer leen pour ëllëg moom mooy ñu téye seen bopp ba nga xam ne su fekkee dañu ba ba toll ci ñu mën a dugg ci biir euh, biir sëy mhm. euh, loolu mooy lu nekk lu xam ne lu am solo la ñetteel bi mhm. moom mooy lépp lu nga xam ne mu jëm ci feebaru sëy loolu tamit asbef daf ci yëngu maanaam exactement mhm. lépp lu nga xam ne que mu nekk ci mbirum sida mu nekk mbirum yenn feebar yi di jàngaru sëy yooyu yëpp asbef dafay taxaw di ci jàppale mais ñu yamuñu ci loolu parce que xale bi nga xam ne mi ngi soog a judd tamit xam kooku il faut nga topp toog ko ba mu am juróomi at nga topp ko maanaam di ñu koy peese di xool li mu nekk est-ce que yaa mi ngi ko nàmp nàmp bu wër yooyu yëpp nekk na liggéey bu nga xam ne boo am solo bu nga xam ne ASBEF daf def. mu ngi ciy taxawu jigéen ñi xale jigéen ñi Sénégal. moo tax ñu ne ASBEF. Mhm. Euh, nit ñi dañ ko jàppee comme patrimoine. Mhm. maanaam nekkul lu nga xam ne. mais ce que bari na. ASBEF bi dafa bëri ASBEF bi la dafa law mhm. ci biir Sénégal soo demee Kaolack di nga fa fekk ASBEF soo demee Richard di nga fa fekk euh, ASBEF ñooñu yëpp ay antenne la ñu nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi mm. soo demee ba Kolda di nga fekk ASBEF nga dem Signalon Djeba di nga fa fekk table euh, ASBEF Tamba di nga fekk table euh, ASBEF donc pour wax ne ak Saint-Louis mm. di nga fa am fekk Dakar ñaata am nañu euh, clinique bu mag bi moo nekk fii mm-hmm. mais amoon nañu beneen antenne biir Guédiawaye mm-hmm. boobu antenne boobu yàlla dafa def. Mhm. ci ji diiri ay jafe-jafe yu ñu jànkuwanteel ba nga xam ne antenne boobu dañ ko. daanaka tëj dafa mais boo nee clinique bi nekk fi Dakar clinique bi ñu bari dañuy jàpp ne dafa cher. non clinique bi moom cherul parce que mhm. ñi fi ñëw. Mhm. Euh, parce que ASBEF lan mooy taxawaayam mooy néew ju jolee ñoo tax ñu jóg. ñi nga xam seen loxo jotul seen ginnaaw loolu moo ci gën a am solo parce que soo gisee fi mu nekk sax. prix clinique bi fi mu nekk. wane na ñun jàppale doomu aadama rek moo ñu fi indi. nekk fii côté. xaw a jegeñ Grand Yoff mhm. de képp ku nga xam ne xam nañ Grand Yoff euh, euh, quartier bu rëy la mhm. donc ñooñu ñëpp mun na ñëw foofu pour mun a am seen affaire mais mais li nga wax am na am na solo adapuy mais tamit bu fekkee ASBEF mi ngi def lool lépp euh, di yëngatu ci wàllum social parce que loolu social la di jàppale jigéen ñi ak xale yi ñu faju mais tamit dinañ laaj kon ASBEF fan lay jëlee xaalis pour mën def liggéey boobu maanaam xaalis fan ngeen koy jëlee fekkee gars yi dañuy ñëw fay ay cinq cent wala deux cent alors que peut soo demee si yeneen hôpitaux yi lu mu ndaw ndaw di nga fay trois mille jëm kaw ainsi de suite bu dee clinique yi di nga fay seize mille vingt mille francs juste rek pour consultation mais dinañ laaj kon ASBEF moom ay kopparam fan la koy jëlee pour mën a def liggéey boobu yëpp dëgg la xam nga wax naa la ci njëlbeen mhm. euh, ASBEF bi ñu koy taxawal euh, officiellement mhm. euh, mun nañ jàpp ne te 1975 gouvernance reconnaître ko ak ministère de l'intérieur ci jamono yooyu nguur bi waa Sénégal mm-hmm. ñoom ñoo doon jàppale ASBEF ci côté euh, com mm-hmm. ñoo doon ñoo doon jàppale maanaam ci mbirum oto yi ñu utiliser mbirum garab yi ñu joxe mm-hmm. ak euh, médecin yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak sage femme yi fa nekkoon yëpp yooyu waa euh, nguur bi ñoo leen doon jàppale mais bi ñu demee ba ca jamono yi nga xam ne ASBEF dem na bokk nekk euh, ci fédération bi ñuy wax fédération internationale pour la planification familiale. Mm-hmm. Euh, bu nga xam ne ñi ngi ko sanc en 1952 en nen mm-hmm. donc ci boobu mu am ay sart yu nga xam ne ñooñu boo fekkee yi da nga bokk ci fédération boobu. Mm-hmm. ñoom dañuy jàppale ci anam yu bëri surtout anamu kom. loolu moo tax ñoom dañu joxe subvention. Euh, loolu waa fédération internationale pour la planification familiale. chaque année dañuy joxe ay subvention mhm. ASBEF pour mun a dawal seen programme subvention bi yamul rek ci xaalis mhm. parce que xaalis bi mën na fekkee dañ koy jéem mu natt dinañ joxe at bu nekk lu mat un milliard ak cinq cent millions mhm. loolu la ñuy joxe ci CFA joxe pour jàppale li ñuy wax programme yi nekk euh, ci lépp lu nga xam ne mu ngi jublu ci affaire ASBEF loolu mais suñ koy def aussi xaalis boobu ñuy joxee yamul la ci xaalis bi nga xam ne ci ñoom la jóge parce que am na yeneen kuréel la yu nga xam ne dañuy jàppale aussi képp ku nga xam ne yaa ngi yëngu ci affaire wérgu yaramu jigéen. Mm. bugg naa wax euh, lu mel ni UNFPA euh, benn agence bu nga xam ne moo nekk fii moom tam bi nekk ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. di jàppale lépp lu nga xam ne muy jëm ci affaire jigéen yi wérul ak yooyu. donc nekk na lu nga xam ne loolu ay fu ñu jëlee aussi xaalis la USAID seen wàll bopp. Mm. dinañ jàppale ASBEF ci côté boobu. parce que yàgg nañ am ay programme yi nga xam ne USAID moo ko doon def. Mm-hmm. Pays-Bas dañuy jàppale programme ASBEF. Mm-hmm. dafa nekk lu nga xam lu am njëriñ la lu ñuy wax développement mhm. développement durable mhm. parce que suñ koy wax loolu moom mooy développement durable su mhm. fekkee am looy benn programme bu nga xam ne am nga euh, euh, maanaam euh, comme bi mat yëpp yore nga ko que comme bi yamu rek ci xaalis comme ni mu la ko waxee léegi yam na aussi ci ay oto yi nga xam ne moom nga utiliser ñoom dañuy joxe dañuy jàppale ñu am ay oto yi nga xam ne dina la mën a may nga am ay clinique mobile maanaam dem ba ci àll bi. Mm. mun a waxtaan ak nit ñi yee leen mbirum wérgu yaramu jigéen ba nga xam ne ñoom dañoo mën a fagaru. voilà léegi nag naka gisee Adja Pouye gis nañ ni euh, la santé coûte cher au Sénégal euh, santé dafa cher euh, peut-être sax yéen bànqaas bi ngeen di yëngatu yaakaar naa ni soxla nañ ay asbef yu bare bare gis nañu tamit négligence bi ci hôpitaux yi. bari na euh, ñiy faatu ci hôpitaux yi ndax négligence maanaam non assistance taxawaay bi nga xamante ni moom lañ leen taxawoo ba seen bakkan des bari na ba temps sax déggoon nga njiitu réew mi yëkkati ci ay kàddu naan képp ku ñëwati urgence nañ ci def lañ ca war a def mais naka nga nekk ci naka nga gisee ñu nekk ci réew moo xamante ni la santé coûte cher nit ñi bu ñu feebaree pour ñu faju c'est tout un problème boo demee ci hôpitaux yi euh, taxawaay bi nga xamante ni noonu la ñu war a taxawee euh, patients yi amul euh, te tamit ñu ngi wax lu ñuy wax couverture maladie universelle ban jàngat nga ci am ñu bari nee nañ santiruñ CMU boobu dëgg la man eh, ci nim ko sama jàng mm-hmm. jàngat ci mbir moomu nekk na mbirum santé dafa nekk lu doy waar mm-hmm. parce que bu ñuy wax développement ci ci lan lañ ko njëkk gën njëkk natte moom mooy naka lañ jàppee euh, affaire wér-gu-yaram doomu aadama. Mm-hmm. nekk lu nga xam ne ci critères yi nga xam ne moom la ñu pour mën a natt euh, effectivement euh, dëkk bi fan la toll ci côté koom. Mm-hmm. su fekkee nit ñi wéruñu ça di dire que mënuñu liggéey. lu mm-hmm. ñu am benn productivité. loolu loolu moo tax ma ne am na programme yu bëri yu nga xam ne jaar na fii ci Sénégal. CMB bi dafa ñëw mottali li nga xam ne amoon na fi ama amoon na fi ay programme national de sanitaire. yooyu yëpp pour wane ne rek am na Sénégal am na ay jéego yu bëri yu nga xam ne egg nañ fa. Mm. parce que man yàlla dafa may ma liggéey ci ay dëkk yu bëri. Mm. yu nga xam ne yamul ci Sénégal. mais mun naa jàpp ne Sénégal am na fu jéego yu nga xam ne yu bëri egg nañ fa ba nga xam ne mun nañu am satisfaction mais terewul am na ay jafe-jafe bi léegi. Mm-hmm. couverture maladie universelle man yaakaar naa ne euh, euh, lu am solo la parce que tey tey tey du ñëpp ñoo am. Mm-hmm. Euh, protection mm-hmm. sociale. nan ngay mën a def ba nga doon mu a yaatal. Mhm. ba nga xam ne doomu se foo munti nekk ka nekk ci àll bi. Mhm. ka nekk ci biir taax bi yëpp di nga mun a accéder à la CMU kooku nekk na lu am solo c'est une avancée. Mhm. extrêmement mais maintenant ci biir loolu dafay am toujours am ay jafe-jafe parce que booy fàttali ko am na ay jamono yi nga xam ne dañooy wax plan d'ajustement structurel. ñu wàññi lu bëre ci affaire personnel de santé. dañoo ba nga ba nga xam ne pour am personnel de santé sax dafa nekkoon lu nga xam ne lu jafe la. te yaakaar naa ne bu ñu investir dañu war a gën a investir actuellement moom mooy sur la formation du personnel. Mm-hmm. personnel sanitaire que mu nekk sage-femme parce que ay jamono yi nga xam ne pour am ay sage-femme sax ci yenn dëkk yi mm-hmm. jafe-jafe lay doon mm-hmm. su fekkee amuloo sage-femme parce que su ñuy wax jigéen bu ëmb mucc ci jàmm mooy ku nga xam ne ku xam liggéeyam. Mhm. moo koy mu ku waaw mhm. moo koy assister su fekk amul loolu ça dire que liggéey bi euh, taxawul. taxawul donc loolu moo tax ma ne loolu yëpp amee jéego yu ñu def ba léegi mais il faut que ñu delluwaat encore ci côté formation. Mhm. du personnel loolu mooy indi. ñuy wax des soins de qualité. de soo amul personne formation. li ñuy wax euh, bañee bay PSE dañuy wax affaire capital humain su ñu nee capital humain mooy wër gu yaram d'abord nit ki il faut mu wër pour mun a jëriñ doomu aadama voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre euh, seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal euh, Ada Pouye nekk euh, volontaire ca ASBEF ak kile di Assane Cissé nekk porte parole ex travailleur yu airport bus service kon si kanam dinañ ñëw ci crise bi nga xamante ni moo am foofu foofulee ca ASBEF Assane Cissé tey ji ngeen ne da ngeen bëgg ñu fay leen ñeenti at yi nga xamante ni da ngeen a toog jotoo leen seen salaire yéen a ngi laaj ñu daal di leen euh, intégré euh, foofule ca aéroport international Blaise Diagne yéen plan d'action ngeen fas yéenee def pour vraiment peut-être euh, njiitu réew mi mën a jot ci message bi mun a taxaw ci jafe-jafe bi nga xamante ni actuellement 47 ex employés yu ABS yi ñu ngi koy jànkonteel waaw jërëjëf mm-hmm. jamono bi may wax ak yow mm-hmm. amagul benn plan d'action boo xam ma teg nañ ko li ñu acte bi ñu njëkk a def mooy yëglu mooy génn wax parce que déjà. Mhm. man fi ma toog nii sax du sama place. bu fekkoon nañ ko teg ci yoon. Mhm. parce que ñun waa mhm. ABS. bi ñu nekkee aéroport dañoo bokkoon ci benn syndicat bu tudd SUTAS. syndicat unique des travailleurs euh, de l'aéroport et activités annexes du Sénégal. te ki ko jiite woon tudd Alassane Ndoye ñu naan ko Alou. Euh, ñun bi ñu fa nekkee dañ doon fay cekof maanaam chaque mois dañ doon joxe ku nekk dañ daan dindi ci sa salaire mille francs mhm. ñu koy ñuy participer ci ci ci ci syndicat bi donc ñun dañu gis ne bu ngeen gisee ñu ñëwal xeex toggal suñu bopp fii di waxal suñu bopp c'est parce que ñooñu ñoom ñooñu abandonné mhm. ñoo deful lañu waroon def ñoo deful lañu waroon def te mhm. loolu depuis bi ñu nekkee aéroport la parce que déjà euh, Alassane Ndoye boobu noonu ñun bi ñu nekkee ci problème yooyu ba bi ñuy génn aéroport ñun teguñu ko bët bi ñu jour ba guddi googu ñu ñuy génn aéroport Alassane Ndoye nekku fa te même biñ ñuy génn ay ba biñ ñuy génn aéroport amul benn document bu officiel bu wane ne ñun dañoo war a génn. ngeen war a génn aéroport amul. Mhm. donc dañoo ñëw jaañu doole génne ñu te ñun bi ñu fa nekkee aussi wax dëgg yàlla ñun dañoo jàppoon ci SUTAS. Mhm. parce que société bu ñu mosaan a jaay doole rek ñun daan nañu ànd ak SUTAS xeexal société boobu ba mu am li mu bëgg. Mhm. mais ñun dañoo jàpp ne ñun bi ñu bi ñu amee problème SUTAS daf ñu seetaan. parce que yeneen sociétés yi mënu ma wax ne dañuy seetaan mm-hmm. parce que ñooñu sutaas moo leen di moo leen di jógloo ñu jóg donc bu sutaas euh, banqué ay loxoom bàyyi ñu néewal ñu doole donc man accusé wu ma kenn sutaas laa accusé ñoom ñoo ñu abandonné man je peux même dire que dañu trahir mm-hmm. parce que nit ki bu fekkee dangay ngay def volontariat nga dama lay dimbali te yàlla tax mm-hmm. même bu fekkee euh, li nga li nga li nga li nga koy kii li nga koy euh, li nga koy jàppale réussirul kooku amul dara lu la mën a wax kooku yéene bu rafet la am ak jóg def lu mu mën pour que euh, ngeen am li ngeen bëgg mais ki nga xam ne dafa taxaw laaj xaalis laaj participation pour en cas difficulté mu taxawu la. Mhm. bu ñu waree def dara mu def ko bu amee ay manquement mu génne ci xaalis boobu def ci kooku boobu ba léegi may wax ak yow nii. amul benn rajo bu ñu taxaw waxal ñu. waxal leen amul benn télé bu ñu taxaw waxal ñu. du manifestation du dara même bi nii ñëwuñ nekk gisuñu leen sax. Mhm. gisuñu leen du Alassane du Leyti Diouf. Leyti Diouf moo nekkoon le délégué du personnel moom moom la ñun moom la ñu choisiroon moom ñu doon représenté SUTAS gisuñu ko donc ñun ci situation boobu la ñu nekk. moo tax ñu ñu mais est bi jël bëgg jéemoo leen ko yóbbu ci yoon parce que tamit dañu li nga expliqué nii dañu violer seeni droit waaw xam nga yoon mhm. balaa ñu ciy dem mhm. day fekk ne amatuñu ku kenn déglootuñu mhm. parce que saaxa bi ma lay wax maa ngi la autorité bi moom ñuy déglu parce que di ah, DSP mais quatre boobu ba moo tax ñu jóg moo tax ñu jóg tey jii nii di yëglu bëgg autorité bi nga xam ne moo war a jël ay responsabilité am jox ñu suñuy droit ba pare dugal ñu ay rapport mu yëg ni ba léegi nii fi dossier bi toll woon fa la toll. Mm-hmm. léegi nag bu ñu demee ba ci kanam nag. defuñu réagir ñu waxuñu dara su boobaa nag ñu ñu def li ñu war a def. ñu aussi mm-hmm. da def ay grève de la fin wala marche wala lu ngeen fas yéenee mm-hmm. def xam nga tey jii nii pour vraiment euh, président Sall dégg leen. waaw xam nga taxaw seen jafe pour man bu ñu nekkoon ci réew bu sérieux jarul sax ñuy àgg foofu yëpp. Mhm. gis nga président njiitu réew yi dañu war a Afrique yi dañu war a respecter seen i travailleurs dañu war a respecter seen population gis nga dafa am loo xam ne àqu doomu aadama bi la. Mhm. nit ki bu liggéeyee ba weer dee saleeram mooy droit wam bi gën a ndaw dañ ko ko war a jox. Mhm. surtout nit koo xam ne yow daxoo ko yow ne xamal nga ko carrément ko ne dëgg man maa la yoreel et fay ko tey jii nii 47 travailleurs nga dajale leen seen xaalis jox ko loolu lan lay wàññee état. wàññi ko dara. instant buñ ko xaymaa ñaata lañ leen amal ci koppar. Euh, globalement ñoom ñoom ñoom xam nañ ko man man xaw ma ko yoruma fi chiffre yi. ñaata million la. non mais bariwul loolu bariwul. même bu dul dara. mais mais yéen parewulee marche ainsi de suite. waaw non non non non loolu yëpp mën na nekk. Hmm. mën nañ ko def du yàgg sax mais ñun ñoo bëggul sax àgg ak foofu parce que tamit ci réew mi la ñu dëkk ah xam nañu comment ça se passe mais bëgguñu sax àgg ñoom foofu yëpp parce que daf ko jarul. Hmm. parce que ñun déjà bariwuñu. donc fay ñu suñuy salaire warul jafe case ñu feneen ñu liggéey aussi warul jafe donc loolu warul waruñoo dem sax bay marche di dem ay déedéet jaru ko pour man bu ñu nekkoon ci ay réew yu civilisé mhm. coow li sax warul àgg fi sama benn ndijaay daf ma woo téléphone di ma saboté mhm. moom mu ngi bitim réew mu ne ma heure bi de bu la nekk bu la fekkoon France kon million millionnaire nga mhm. parce que yow du ñooñu ne ne tubaab du maye maanaam xamul loolu quoi jël may la nii nii nii. Ah, xamul xamu ko mais boo liggéeyee da lay da lay fay. Mhm. moom trois du yoral nit dara. Mhm. ma ne leen nag mais ñu suñu président suñu njiit yi lan moo tax mënuñu jël exemple ci ñooñu. Mhm. problème bi du ñun kese Sénégal boo xoolee ñuy dund loolu dafa bari donc il faut il faut que euh, euh, njiit njiit yi ñu ñu ñu ñu am ñu am kii boobu ñu am. Euh, ñu am sagesse boobu. Mhm. bañ a bañ a yoreel njaboot gi xaalis bañ di leen seetaan ñuy tumuranke di torox c'est pas c'est pas bien. mais parce que sànq tamit yaa ngi wax affaire SUTAS taxawuñ leen kon da nga bëgg a wax peut-être euh, syndicalistes yi euh, nekkaluñ fi vraiment les les travailleurs. surtout ñu nekk ci jafe-jafe yu demee nii. man syndicalistes yu ay rapport laa xam. Mhm. déjà Alassane Ndoye mi nga xam ne moom mooy la secrétaire général dafa effacé wu complètement il ne prend plus les appels. Euh, te moo leen moo waroon porter seen combat suñu combat. moom moo waroon taxaw laaj kaasal ñu suñuy droit moom moo waroon taxaw xeexal ñu am na benn sortie bi mu defoon benn bés aéroport mhm. depuis keroog laa leen ne xaw ma ndax gëm ngeen li ma wax wala gëwuma leen gëmu leen ko mais kii pare na ci dootu ci waxati parce que dafa taxaw publiquement mu ne moom li muy te mooy mu dem toogax autorités yi mhm. d'accord ak ñoom ci loo xam ne Euh, euh, jotu ko jotuñu ko defal notifié wuñu ko. Mhm. du kayit bu mu signé du dara. loolu mhm. daf koy regretter. Mhm. est-ce que yow boo respecté ay nit yoo xam ne yow yow yaa leen yor seen kàddu. te dañ lay fay. du loo xam ne dañ lay da nga koy def volontairement déedéet da ngay encaisser seen xaalis. kon ñooñu da nga leen war a taxaw sérieusement boo demee bay toog ak nguur di jël benn décision dañ ko war a bind ci kayit mu leer nañ. ñu signé ko ku nekk yor ko bu ëllëgee li ñu wax buñ ko deful. Mm. nga taxaw ne yéen ko waxoon këyit yaa ngi nii. Mm. donc man depuis boobu laa amatul confiance ci waa ji. loolu moo loolu moo tax nag ñun aussi ñu organiser wu. fas yéene porté combat xeexal mbir mi seen bopp ay ca adap yi ñu ñëw ci crise bi nga xamante ni moo am ca ASBEF laal wàllum gestion laal wàllum koppax euh, ñu bëggoon nga leeralal euh, auditeurs yi qu'est-ce qui se passe euh, vraiment ca ca googu googule di ASBEF jërëjëf Koumba euh, ci gàttal. Mhm. Euh, dafa am euh, wax naa leen sànq ne ASBEF dafa ji bokk ci benn kuréel. Mhm. bu mag. Mhm. bu nga xam ne seen siège mu nekk Londres. boo bokkee ci kuréel boobu dafa am ay sàrt yu nga xam ne ci loolu ngay wéyee. maanaam ki nga xam ne moom dafa lay di dimbale. di la jàppale ci sa programme pour dimbale waa Sénégal. am na sàrt bu njëkk bi. moom mooy euh, soo nekkee euh, association membre dafa am lu ñu xam ne moom moom la ñuy wax assemblée générale. Mm-hmm. assemblée générale bi moom mooy wàllu li ñuy wax volontaire maanaam ñi nga xam ne ñoom dañ jël seen carte de membre ba pare nekk à jour de la cotisation parce que ñoom ñëpp dañu cotiser mm-hmm. volontaires yi. Mm-hmm. Euh, tout naa la ay waaw volontaire maanaam ñi nga xam ne duñ leen fay dara waaw ñi nga xam ne ñoom dañuy jàppale rek seen dafa war a gër moom mooy jàppale leen mhm. pour ñu mun a taxawal liggéey bi ci anam yu wér mhm. ñoom seen wàll boobu ñoom ñooy recruter même personnel bi mhm. pour ñu mun a liggéey volontaire yi ñooy recruter personnel maanaam fay maanaam ñu ne ñu ñuy fay ñu ne ci kaw loolu ci sart yi euh, ASBEF organisé benn assemblée générale le 23 mars bi ñu ko organisé le 23 mars ñu war organiser anam yi nga xam ne wérul woon. ana bu njëkk moom mooy dañuy fal benn euh, présidente bu ñuy wax Ajaratu Xadi Ndaw Si. mu nekk directrice si sunu assurance. Euh, bi ñu seetloo loolu ñu ne moom lañ jël fal ko ñu ne ah lii de moom doy na waar nañ jéem moo xalaat mbir yu baax. léegi ñu wax waa IPPF ñi nga xam ne mooy fédération bi ne leen ah am na ay élections yu fi am. Mhm. mais élections yu jaarul ci yoon. ñu ne ñoom xaaral ñoom ñu ñëw gëstu pour xool ñu dépêché fi benn mission mission bu ñëw xool gëstu seet ne ah ki nga xam ne moom lañ fal def ko comme président mm-hmm. en réalité amul sax amuloon woon dañu dafa am carte de membre depuis euh, li ñuy wax depuis deux ans mm-hmm. mais ñoom bi ñu xoolee registre bi registre bi dañ ko faase mm-hmm. ba pare yokk ci turam mooy mi ngi nekk ci antenne bu ñuy wax antenne bi nekk Kaolack te bi ñu seetloo bokkul woon ci antenne boobu amul woon carte de membre maanaam euh, ki nga xam ne moom mooy directrice exécutive ñu ngi ko tuddee que euh, Miriane Makeba Mingu. Mm-hmm. maanaam moo defool affaire yi ba nga xam ne kooku moo waroon nekk présidente parce que soo nekkee présidente nga déggoo ak directrice exécutive ça veut dire que lu nekk mënu ko def ci biir association bi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ci kaw loolu bi ay waa IPPF ñëwee def seen gëstu xool ne ah lii de jàll ci yoon. ñu ne non non lii moom ñun mënuñu ko seetaan yéen da ngeen jalgati yoon bi donc yéen seen affaire bu wàcc ngeen. Mhm. yoon bi nga xam ne moom lañ tëral. pour bépp ku nga xam ne bokkuñu ci association bi nga bokk ci. Mhm. kooku mooy lu njëkk maanaam seetlu la ñu ne ñetti euh, euh, ñetti euh, kii li ñuy wax jalgati moo am. Mhm. benn jalgati bu njëkk bi mooy ndaw si xadi xajaratu xadi ndaw si nekkul woon membre volontaire Kaolack. ñaareel bi. ñu ne dafa cotiser parce que dañ ne il faut boo nekkee membre volontaire dafa am lu nga xam ne moom ngay joxe at bu nekk. Mhm. ñu gëstu ñu xool ne jour bi ñu def assemblée générale jour boobu la joxe cotisation. Mhm. maanaam jàllkat ñaare kooku moom mooy ñaareelu jàllkat bi ñetteel bi ñu ne ah su fekkee yow da nga bëgg a nekk président de. Mhm. il faut nga nekk ku nga xam ne da ngay bokk ci yëngu-yëngu association. association ñu gëstu xool réunion yeeg yëpp mais ñu seetlu ne kii bokkul ci dara. bokkul ci dara. maanaam dañ ko teg daal ci nga xam ne dañ ko def ci affaire jaay jaay doole. Mhm. pour teg ku nga xam ne su fa nekkee ñoom dinañ def lu la neex. Mhm. donc loolu moo tax waa waa fédération bi ñu ne ñoom ñoom daal reconnaître ñu euh, loolu nga xam ne moom lañ sant. Mhm. ñu ne ñaareel bi dem nañ gëstu xool ci mbirum association bi ñu ne ah ñoom de li gis parce que kuréel bu nga xam ne dafa yëngu ci affaire wér-gu-yaramu euh, ni jigéen ñi. ak doomu adama ñoom yaakaar nañ dafa am nu nga xam ne danga am nit ku ko jiite da nga war am yërmande. Mhm. ñooñu ah ñoom daal li ñu gis moom mooy ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Myriam Mingu. Mhm. moom amul benn yërmande ci personnel ci personnel parce que maanaam daf leen di menacer. Mhm. chaque fois saa ñu amee problème mu menacer leen ba li may wax ak yow léegi léegi nii nii nii. quatorze personnes yi nga xam ne moom dàq na leen ci biir ASBEF. ci biir ASBEF. waaw donc loolu pour lu wane ne rek. ñoom dañu def ay jalgati yu bëri ñu seetaat ci affaire com bi. Mhm. ñu ne ah com bi de dafa am ay charges yu taxawal. charge yu ñu taxawal moom mooy su fekkee danga nga jël par exemple benn montant bu nga xam ne euh, dafa romb un million de francs fa il faut nga jaarale ko ci volontaire ñoom seen wàll boobu ñoo koy signé. Mhm. moom léegi dafa xam lu muy xam ba nga xam ne. Mhm. léegi mu ne léegi suy def euh, di def passation de marché. dafa def toujours pour mu nekk neuf cent mille. Mhm. ba nga xam ne moom moo koy def. moo koy def du ko jaarale ci yeneen volontaire donc loolu yëpp euh, jalgati yooyu yëpp moom la mission bi gis. Mhm. ne nag léegi pour ñoom ñu mun a continuer ak ASBEF léegi li ñu njëkk def mooy li njëkk laajtee moom mooy. dañu gis jalgate yi ñu ne dootuñ mun a mun a continuer ñu ne léegi parce que suñu continuer tamit il faut mu nekk ci ay diir yu leer. Mhm. diir bu njëkk bi moom mooy nañu suspendre ki nga xam ne moom mooy directrice exécutive. maanaam Myriam Mingu. Myriam Makeba Mingu. ñu suspendre ko pour trois mois ndaw si mu ne moom kenn suspendre. kenn du ko mën a ko suspendre reconnaître ko. Mhm. ñu ne kële il faut mu gét euh, teggi ndomb tànk bi. Euh, ajaratu xarit ndaw si. ñu mhm. teggi euh, ndomb tànk bi léegi su boobaa ñoom dina jéem a xool naka lañ koy ñoom ñu continuer li may wax ni depuis le mois de mars la. de mars mars deux mille dix diggante bi mars deux mille dix neuf. Mhm. diggante bi ñun suñu wàllu bopp ñu porter plainte. contre ñoom pour faux usage de faux. Mm-hmm. ak lépp li nga xam ne mission moom la tëraloon comme ay jànka euh, li nga xam ne moom la jànkante woon ci mbir mi yooyu. Mm-hmm. léegi ci biir loolu dem nañ euh, dikk ñëw na def investigation. loolu yëpp établi nañ ne loolu dëgg la ñaareel bi ñu ne ah li ñuy lépp lu ñu doon wax ci affaire gestion bi aussi gis nañ ne loolu aussi dëgg la ci biir loolu dikk def investigation yëpp. Mm-hmm. léegi ba dem investigation bi ñëw nañu teg ko ci bureau procureur de la moom mooy su fekkee mbir bi am na évidence yu rëy nooyu mhm. naka lañ togg ma nga xam ne ministère euh, dison le procureur de la république jëlewul dossier bi mu leeral ko parce que depuis le mois de juillet mhm. dossier bi mu ngi ci mhm. mais ba léegi gisuñu dara ba léegi amul benn avancement amul benn avancement ba euh, tere ba léegi ñaar ñaar ñi ma tudd nii ñoom ba léegi ñu ngi continuer di def. ñu ngi continuer def seen liggéey ñu ngi def seen liggéey mais est bi handicapé wul fonctionnement wu. ASBEF dafa handicapé parce que depuis boobu. Mhm. ASBEF dafa arrêté euh, IPPF dafa arrêté. Euh, mhm. fédération bi. Mhm. dafa arrêté financement yi joxatu leen xaalis léegi. nee euh, xaalis bi bi leen bi ñu dese woon. moom lañ jéem a def kët kët ñaareel bi moom xam na ne lii du dem. du wéy. parce que IPP fédération bi may tudd nii. su fekkee ñoom jàppale ñoo ñoom duñ dem. ilaa yow mi du mën a dem. léegi moom ñu li sama xel di ñaar. Mhm. moom a ñi lan mooy seen lan si lan leen jublu. lan mooy seen bébé daal ak liñ def lan moo ko waral. waaw lan moo ko waral mais et puis Sénégal nekk na dëkk bu nga xam ne aussi euh, man leen yenn lenteur yi mënuma ko comprendre parce que fekkee dañuy porter plainte ñu yóbbu affaire bi yëpp ñu def investigation yëpp ñu xam ne lépp mu ngi fi nañ ko teg ci table yi normalement. tey tey tey su fekkee nañu xool li yoon di wax dëgg dëgg dëgg ñaan ñi ñëpp war nañu woon a jàpp. Hmm. parce que dañuy yàq li nga xam ne mooy patrimoine bu gën a am solo ci Sénégal. muy ASBEF hmm. donc léegi ci kaw loolu euh, jéem nañ gis ministre de la parce que nekk na lu nga xam ne affaire wërgu yaram la dem nañu audience ak ministre de la ko wax li nga xam ne moom lañ jànkoonteem jëm comme jafe-jafe moom ci boppam mu assuré ñu ne ah moom de du seetaan ASBEF bi yàqu noonu mais ba léegi dégguñu dara. donc loolu moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ jànkonteel actuellement moom la ASBEF di euh, jànkonteel waaw ñetteel bi ñi nga xam ne ñoo doon jàppale parce que am na benn programme bu ñu wax coli cellule de lutte contre la malnutrition ñoom tamit tey banque nañ seen loxo ne ah yi yiñ seen affaire liggéey bi ni ñu ko defee wóorul mm-hmm. parce que suñu xoolee Kaolack ñu xool ay Richard Toll xool dëkk yooyu yëpp nga xam ne jëm fa dugal seen xaalis que projet boobu projet la bu nga xam ne banque mondiale moo leen jàppale mais ñoom kon amuñu benn kontante ci ni ñu ko tey donc ñoontuñ té banque nañ seen loxo téye nañ seen loxo ça veut dire euh, fédération internationale pour la planification familiale banque seen loxo xaalis bu nga xam ne dafa jëble woon mission fondamentale mu ngi noonu bu ASBEF xaalis bu bépp bailleur de fonds bu nga xam ne joxe woon xaalis que mu nekk kanada que mu nekk euh, pays ba xaalis yooyu yëpp ñoom dañ ko téye ñu ne dootuñu ko joxati euh, waa ASBEF tànk mbir mi leeru tànk mbir mi leeru maanaam mbir mi mbir mi moom mooy Euh, ajaratu xadi mi xadi xadi xadi ndaw si. Mhm. moom ci boppa boppam na teggi ndong ba tànkam war na bàyyi na. Mhm. ñaareel bi ñu ne kii moom licencié nañ ko. Mhm. naka la tu euh, euh, kii ñuy wax Miriam Makeba Mingu. donc loolu yëpp moo nekk ci table bi. léegi waa IPPF nee nañu su fekkee loolu teg nañ ko ci yoon ñoom seen wàll boobu dinañ dellusiwaat mais fii ba le 31 janvier. su fekkee def ko ñoom seen wàll boobu dañuy dax asbef ci biir fédération boobu suñ ko dàq ci biir fédération bi mhm. léegi man sama xel fu mu nekkee euh, li ñuy wax euh, palaay gën a insisté mooy ñii dafa am lu nga xam ne dañ ci jublu mhm. li ñu jublu moom mooy jéem a accaparer maanaam pàccoo li nga xam ne mooy kër kër bi ñu wax asbef suñ ko paasoo ñaar ñaar ñu wàll la mhm. ou bien waa sunu assurance ñoo bugg jël affaire bi def ko seen mbiru assurance parce que si foofu la nekk di liggéey wala suuf ji ci boppam parce que affaire bi dafa am assiette foncière. Mm-hmm. boo gisee euh, kii wu asbef ni mu toll. Mm-hmm. nga xam ne lii jeex na waaw nga xam ne lii. Mm-hmm. nekk lu nga xam ne am solo la. léegi ñun li ñu jàpp mooy le vingt huit décembre def nañ suñu assemblée générale. waxtaan ak nit ñi cent personnes signé nañu pétition. pour wax ne ñii nañu génn suñu association. ñu taxawal benn kuréel bi ñuy wax euh, comité intérimaire de gouvernance ci diiru ñetti weer. pour ñoom ñu mun a organiser benn assemblée générale. fal benn président bu bees bu nga xam ne ci anam yu wér lañ ko fale mooy bu dëppoo ak li nga xam ne moom la euh, fédération bi ñu jàppale di tëral. ba pare ki nga xam ne moo fi nekk ne moom mooy yore kër gi aussi mu génn. mais ba léegi ñoom ci foofu lañu toll. voilà quelques secondes nga tàggoog auditeurs yi ñu tàggatoo waxtu bi moo ñu xooj jeex na. Assane Cissé waaw mm. jërëjëf soxna euh, ndey Comba. Mm-hmm. Euh, bëggoon rek euh, ngeen may ma deux secondes rek. Mm-hmm. ma leeral lu ndaw. ñun ba keroog bi ñuy génn aéroport ADS dafa yoraloon la soci ADS bu Pape Mayel mm-hmm. dafa yoraloon la société ABS lu toll ci deux milliards. ci xaalis bi nga xam ne moom moo doon dugg chaque mois bi ABS doon dugal mu waroon ñu ci jox sunu sunu mu waroon ci jox société bi. daanuñu ci woon jox. donc boo dajalee loolu dem na ba deux milliards. bu ADS yorel ABS. amoon na benn bus aussi boo xam ne benn oto boo xam ne dañ ko jëndoon pour ñi nga xam ne ay waay lañu. Mhm. pour di leen mën a transport di leen yóbbu ci avion bi sans difficulté mu tuddoon bus bi Ambilift la tuddoon. Mhm. Euh, boobu aussi ñun bi ñu fa nekkee nekkoon ci ay problème waa ASS dañu ko loué woon. malgré ñu nag ñoo ma nekkoon ci benn problème dañu ko loué woon waroon dañu fay chaque mois 2 millions mhm. donc boobu aussi Cheikh Tidiane Ndiaye mhm. yoral ñu 2 millions euh, mhm. ci xaalis bo euh, euh, ci xaalis boobu vingt astafurlah yoral ñu 20 millions ci xaalis boobu donc euh, loolu aussi ma ko ba bëggoon ko leeral rek. Mm-hmm. donc di leen remercier bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla suñu borom euh, euh, dimbali ñu taxawuñu ba jafe-jafe yam fi ba ñu bañ àgg ci ay grève de la faim ak ay yenn manifestation amiin mi ngi noonu ñu leen di remercier bu baax Assane Cissé mm-hmm. nekk porte parole des ex travailleurs bu air bu airport bus service ak kile di ADA puy nekk volontaire ca ASBEF di association pour le bien-être social ñu doon xamante ni euh, fi ñu toll nii yile entreprise ñu ngi koy daal di euh, jànkonteel di remercier euh, suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10 heures ba 11 heures di remercier Léon Paul Mendy ci réalisation bi du Diaw Diallo ci wàllum technique bi ba samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa ngeen jëf